déclaque quoi. non non léegi léegi ñu xool batteur bi da ngay soxla courage si batteur. waaw branché na. ah branché na waaw jëlal batteur bi nga. léegi batteur bi loo ci bate attends. non mais nen amul nen. non amul nen mais bu ñu amee ndox ak bool bu ñu ko def dañuy mën a bate quelque chose quoi xam nga. ndox ak lan. fu ñu bo fu ñu batee affaire yi. Ah, non non. booy ala rek fils barki borom Touba bu daaw soo bàyyil di ma wax loolu comme nen ah. wala farine am ndox ak farine. non mën nañ jël ndox rek comme ça ñu gis action de battage bi. waaw wutal bool fu ma ndànk ñu sotti si waaw naa dindi lii mais amul dafa am problème de difficulté ko waxtaan leen seen biir maa ngi ñëw. léegi uma <laughs> waxtaan leen seen biir maa ngi ñëw. waaw ok. <laughs> léegi en attendant ñu ñëw si batteur bi ak aspirateur bi ah? yow par exemple lan nga jàpp ne yow mën nga ko mën a def mais loo mën a defar mais malheureusement da nga amagul matériel boo tax mun a goo koo defar. man comme yi may defar nii ma ciy defar yu mag waaw. comme batteur bi mën nga si defar bu mag. waaw. ok macha allah xanaa lii la lii la bëgg aspirer. waaw après loolu lay aspirer. est-ce que du en attendant alaaji di wut boolam boobu. waaw léegi aspirer. waaw branché aspirateur non ba tey teg ko suuf comme ça ñi kii sa kii ñuy setaan mën a gis euh, kii mu tuure la. Ah, waaw il s'appelle Babacar ngi jógee ba Sébikotane man kaas ngay def troisième. Ah. mu ngi def troisième au niveau de Sébikotane. di di présenter ay mbir yoo xam ne ne am na solo et ça ça met en valeur li nga xam ne ne moom mooy le made in Galsen yaakaar naa Abdoulaye lii lii bokk na si loo xam ne ne euh, li ñu naan une pensée positive wala une jeunesse positive boo xam ne ne mhm. Sénégal am na jeunes yoo xam ne am na talent mhm. et buñ leen mettre te ñu ngi consacré ñu ngi consacré seen temps ci lu am njëriñ parce que bi si biir kii bi lay batee de léegi léegi fii bu ñu fi defee ndox. day aspiré après mu batte. non batteur bi si kii bi lay battee si biir maanaam batteur bi génnul de si biir lay battee. aspiré. sa jàng des na de alaaji batteur buy batterie ci biir loolu fan la. léegi xaar xaar xaar xaar arrière arrière ba taxawal teel nii alaaji. waaw tas ko nii tuuti. lu muy def nii moom. day aspiré bi en attendant ñuy ñëw si batteur bi. Ah, dañuy présenté aspirateur bi nga xam ne. moom la créé moom mi nga xam ne ne mooy euh, Babacar Seck Pape Sidi. aspirateur yi jël affaire ay booy lii bu baaxee di nga ma ko may sama oto de. waaw <laughs> muy aspiré de. aspire carrément hein. ah kere créé nga lu ñëpp soxla lu ñëpp yitteewoo <laughs> lii. booy te booy bi daa juutal butéel bi te waddul de man loolu ma ci gën a. <laughs> yéen nag da ngeen a tasaare lii ba mu ëpp mënoon ngeen ko def mu yem rek. ah waaw tasaare la. mooy kii. dara. aspiré na lépp te lii moom noonu lay despiré. waaw ah, da koy sotti. du sotti. xool ba xam amoo leen loo ci def sax. non man contact bi moo may faj. contact bi da ngay nag. tactile la. contact tactique la. tactile dëgg sax. en tout cas lii création la. et li si grave mooy. te deful bruit quoi. voilà silencieux la. tactile bi de man moo may faj lii. gis nga sama oto si côté yi. waaw côté loolu su ma amoon aspirateur dinaa toj fi wala ñu dem nga aspiré ko. après bu ñu mais bi moom bi mu defar nii courant la mënoo ko defar mu am bañ a am courant mu am batterie. waaw ah, mun naa ko def. wala kii. très bien waaw da tetu kii. Aliou Sigar Aliou Sigar waaw. léegi man dem naa lii damay bañ gaa yi foog ne damay jël ay boolu jàmbur mais laal ma dara. bool bi bool original. waaw nañu expliqué au moins aspirateur bi propriété yi ak particularité aspirateur bi mu créé. après ñu dem si batteur. bouton beeg yooyu. d' accord bi noo ko defaree. assurance non non pas propriété intellectuelle propriété yi rek la ñu wax Pape Samb. ah bu bu la que boo expliqué ni nga ko defaree fii booy itam ñu sàcc. wala wax waaw gars yi duñ sàcc. kii laa defaree Dinamo ak kii Elis daa daa découpé Elis ci plastique. da ngaa juutal Dinamo. waaw. ak Elis. ñun xam nañ Dinamo ak Elis buy dawal oto. wala muy génne ngelaw ventilateur. mais loolu air bi dafay éjecté maanaam dafay génne ngelaw yow naka nga ko defaree ba muy muucu. merci beaucoup. maanaam ah, dynamo bi dafa am ñaari borne positif ak négatif. léegi son inversé borne bi. Oh, day xëcc son inversé muy kii ëpp. léegi foo xamee ay positif ak négatif da nga demoon école jàng ko. borne yeeg ak ay borne ak ay <laughs> yow li ngay wax ni foo ko xamee. non dama kii rek dama ko gis siiru bi. Euh, gërëyee dëgg la. YouTube ngay seetaanee loo. waaw. kon yow YouTube nekkoo fa di seetaan ay ay ay ay ay. Pape Sidi. non damay YouTube amul loolu. YouTube am na boo yoo xam ne ay kii lañ fay seetaan ay théâtre. <laughs> non mais yéen lan moo doon saa yi mooy wax ngeen may fem nii. baal. mais lan moo tax aw ma droit wax sama propre émission. parce que yow da nga sañ wax. da nga sañ wax. yow jàng bi doo nekkee YouTube doo seetaan ay ay Podemarisu affaire ah a la nit ñi seetaan YouTube Sénégal. Hmm, ba baax na. Ah! man de dëkk bi jaxasoo na léegi. <laughs> aw ma sax droit wax su may ñu may yuuxu naan ma ay pam fii damay wax ay waxu dof <laughs> pour yéen man saa yi ma waxee porno laay. waaw baax na. dégg <laughs> léegi booy batteur. <laughs> kii wala gën a dee. Euh, nu mu tudd defal naa yow euh, xottu butéelu nga jël dagg ko de l'autre côté dafa am carton wala amul carton si li nga créé. waaw oh, côté bii nii carton la. il a une volonté de s'éterniser sur l'affaire de kii la. baax na léegi ñu dem si batteur <laughs> bi tey nga dañ ñëw si batteur bi. Ablaye li ñaari kawas la sol bu weex ak bu bu ñëw. noonu la. <laughs> jabaru Ablaye li ñàkk ñàkk nga sa jëkkër. ok. waxoon naa ne la batteur buy buy def si biir. kii bi dafa génnoon loolu teyul protège la. waaw mais Pape xamal naa. déglu ma dama wax yow xam nga xamoo daray batteur. <laughs> mais c'est que yow mës nga toog. man damay toog non non yow yaa daa ko togg Sénégal <laughs> loolu moom xam naa ko maanaam mbirum togg ko. da see toog daal toog. léegi booy damay def fii ndox léegi lii mënuñu si def farine wala kii. mais sorti ci affaire bi anam. li ñu doon aspiré léegi. déedéet du ko mën du ko ménagé. mayonnaise amu fi di. ak farine non non boo demee noonu mayonnaise soo koy defee yow. waaw ak bool ban ngay mayonnaise. bii mais dafa yow par boo boo jëlee lii def si meew du mën mënu ko batte. meew. <laughs> yaa ngi jëw dégg Pape Siri. Papa Mar xiif nga nag tey léegi batteur bi. Ah. Daba je sais pas comment on doit faire pour que nga mën ko gis en temps plein ma teg non mais damay bëgg nga gis ki bi quoi action de faire tourner l'affaire la buy baax d'accord léegi booy jëlal ay lan toog waaw jël waaw defal defal ma xam eh mayonnaise baa ngi jàpp daa waxoon gis pourtant ça fait ça fait tu vois rien. non balax balax yi la bëgg nga gis wàccee affaire bi non mais ak KFF fi mu nekkee yow sa Pape Samb bu la gën a jege. bay booy bi fi mu nekk waaw wala nga jël batteur bi. yaa gis. barki yàlla bu daaw bu daaw bàyyi leen wala wala daaw bu bàyyi. non wala daaw bu bàyyi. ba direct. delloo na la ko de. waaw yaa koy am nii. wér nga lal bool bi. non non ngi koy am. ah mi ngi koy am. waaw. mayonnaise su ndox nga ñuy defar bi. batteur quoi batteur. de kenn mosu ko fay créé batteur. lu am solo ndax mbiri lekk lay gérer. barke <laughs> eh, bu ñu amoon farine def ko la ko beñee. Eh. nga boo jëlee boo jëlee boo <laughs> waaw. nga jël ñaari nen. Ah. nga jël ñaari blanc de fi nga def ko fii nga monter ko cest à nga bàyyi batteur bi mu wal ko ba mu nekk muus nga teg ko si pool jël ñaari jaune de fi teg ko si kaw tëj ko cinq minutes nga def ci fromage tuuti. Eh ak poobar Fall boo koy lekk doo toog doo taxaw. illaay wallaay bul fàtte kii yi ñax gi ñax gi. nga ciy wis. merci nga non ça c'est de la déco rek. c'est de la déco. saa <laughs> yi togg de. togg de. ah batteur waaye ah il mérite des applaudissements. il s'appelle Babacar Seck et il vient de Sébikotane. indi na fi ñaari Babacar Seck non non Babacar Seck batteur dama dëkk ko fële. Euh, euh, Kaolack fële Kaolack. jërëjëf ma ci mbay sax yaa nga Babacar Seck batteur mu créé moom it batteuram <laughs> kon yéen sekkeen gi ngeen battage de jërë jërëme ca mbéy saaxa yaa nga làmbaay Babacar Seck doomi ndey Saloum Seck Bakan Seck ah ñoom Bakan Seck moom nga dégg mooy waa waa waa yooyu ah? ñaari Gambien c'est que naa ndox mi nii rek mais awma benn satisfaction professionnelle wallaay bu fi leen newoon bu fi nen ne woon ba ma bataas ah mais c'est léger c'est très léger extrêmement léger baal il a créé quelque chose de bien maintenant un jour j'étais en train de parler avec un ministre bon je vais taire le nom parce que depuis lors il a fait silence radio sur l'affaire dont on avait parlé <laughs> j'ai cru comprendre que ce n'était pas quelque chose qui l'intéressait par la suite mais dafa ma poser benn question boo xam ne assez pertinente quand même Euh, je me suis posé la question moi-même ndax booy yi li ñuy créer mën nañ ko créer ci échelle boo xam ne nit ñi mën nañ ko jënd parce que ñun ñëpp soxla nañu batteur suñu kër. pour defaral suñu bopp mayonnaise. dëgg la ak aspirateur bi. pour defaral suñu bopp ay crème chantilly wala nga defar ay omelette wala nga defar sa ay affaires yoo xam ne il faut nga mixer ko te batteur ngay soxla. Hmm. mais batteur industriel yi nga xam ne moom mooy dugg si dëkk bi dafay am puissance boo xam ne. en un quart de tour wala une minute di nga mën a pare li ngay def. te batteur bi am na lenteur est-ce que bu ñu la waxoon tey mooy mu ngi nii benn batteur bu nekk ñaata nga si war a def pour nga mën ko defar comme ça ma mën a xool prix de euh, kii bi defar bi. su business model. ñaata la ak bu ma ko bëggoon jaay ñaata laa koy mën a jaay comme ça sénégalais yi mën ko jënd est-ce que lii mën na dem ba yegg 6000 wala 5000 francs waaw. lan ngay soxla pour defar batteur bu am doole. Euh, kii adaptateur bi laay changé ma def ko ba xamante ne am na volt yu bëri comme ça mu am doole. boo xam ne am na volt yu bëri mu am doole léegi yow boo paree xam nga fii ma xool Abdoulaye prototype bi carton la. waaw est-ce que mën nga am par exemple beneen genre. Euh, habillage habillage boo xam ne du nekk carton. waaw xanaa carton plastique yi mooy carton yi ñu defaree kaaf. mais loolu dafay dafay des ba tey du résistant en est-ce que munoo am par exemple benn sorte d'imprimante 3D pour mun ko dugal ci coque bi am filament de carbone boo xam ne da nga koy mën a imprimer mu am couverture bu gën a smart mm-hmm. bu gën a responsable écologiquement parlant mm-hmm. ah présentable aussi boo xam ne design dina rafet parce que lii c'est joli mais carton la bu tooyee dama koy ñàkk mm-hmm. est-ce que coût boobu yëpp mës nga ko xalaat waaw loolu moo tax jàngal xale yi intéressant mais quand même moom mi ngi mën a wax mais je sais pas peut-être am na xaw a kii je pense qu'il est beaucoup xam na li mu bëgg parce que expliqué na la na voltage. il arrive à comprendre il arrive à comprendre peut-être. télé la mais business mooy problème. waaw côté business peut-être télé la wala yooyu. mais quand partie bi dafa wax sànq benn wax ne euh, dañ na ko dañ ko laaj parce que booy ñuy invité chaque mercredi ñuy defar ay mbir yoo xam ne ne soxla nañ ko suñu quotidien mun nañ ko defar à une échelle industrielle wala à une échelle beaucoup plus large mën nañ ko mais c'est juste que booy yi suñu mënee def benn chose à échelle minime yow xam nga lan la booy war a soxla wala booy suñu la waxee leur liste de besoin de besoin pour defar des choses à à à échelle industrielle mais accompagner leen ba pare tamit may leen du temps et regrouper leen pour ñoom ñu boole seen xam-xam parce que tamit am na booy yoo xam ne da ngay gis ni ñii ak ñii bu ñu additionné leur expertise ils peuvent nous valoir des satisfactions créer lu mel ni. mutualité bi quoi dama lay jox benn exemple xoolal mool bi fi créé woon keroog torche boo ëffee mu tàkk donc soxla yow déjà déjà yow loolu rek. loolu nekkoo fi woon noo xam ne. non ma fi woon ma naa ko. mooy voilà léegi boo ko ëffee mu tàkk. léegi yow bu yooyu noonu boo amee ku la mën a defaral lool yow imaginel kooku mu defaral la si te loolu da ko defaral ak échelle bu ndaw mais bu ko defee à échelle industrielle mais loolu mën na entrer en compétition avec yeneen torche yi absolument et léegi da ko mettre en avant ak sa le savoir sénégalais mais en même temps da ngay mettre en avant say doom mais loolu dafa laaj une volonté étatique mais aussi une volonté de formation. c'est une vision politique. une vision politique et une formation volonté de formation je booy ñu update leen si li nga xam ne ne mooy le numérique parce que booy ñi ngi lay wax ay termes yoo xam ne ne xam nga ni booy ñi ngi si monde bi mais